waaw dégg ngeen Moustapha Cissé Lo mooy saaga saaga yu ñaaw yi te ñii ñoo ne ñoo ñu jiite nee na ñoom ñooy suñu président ñoom ñooy dem di toog kilifa yi ñii ñoo yor réew mi nee nañ ñooy contrôler réew mi nee nañ ñoom ñooy tere ku saaga ndey ci internet bi ñoom nee nañ ñoom ñooy tere Assane Diouf saaga ba tax ñu jël Assane Diouf tëj ko ci kaso gi ngir ay saaga te déglu leen Moustapha Cissé Lo saaga yu ñaaw yi nga xam ne génnee na ko ci gémmiñam jëmale ko ci sénégalais ko moom ngeen foog ne lii rafet na ngeen foog ne justice amna na Sénégal kuma mu am nday ak kuma mu amul nday Moustapha Cissé mi dañ ko warona japp nokko ko ci kasso gi Moustapha Cissé amatul droit ñukoy muy continuer di saga nday sénégalais yi nañ leen waxante deug te yalla tax li dafa ñaaw ci ko xam ne mos na nek xawma ma lan la nekkon ci cdao lu ne muy bakko ci réew mi waye da leen leer ne gouvernement wu Macky na leen leer barke rasulullah seen nguur la mu jeex te seen nguur jeex na ba pare daf leen lu leen neex nappaaje leen sénégalais yi saagal leen sénégalais yi nekkee leen fi xamadi gu leen neex nekkee leen fi jël alalu senegal di ko séddoo yéen ñëpp mais bàyyi leen xel ne seen nguur la mu jeex te barke rasulullah seen nguur la mu jeex lii laa ñëwoon di ko wax ci mu Cissé Lo parce que du jël sama temps parce que saagakatu ndey la saagakatu ndey nag moom mooy lekkatu suukar bàyyi leen ko ay saanam lii moo lay xamal ne yow sénégalais bi ñuy déglu yewul xippil sa bët nga xol nga yeewu utiliser sa xel mi gis nga rew mi nitu deug yi dañ leen desal fen kat yi ak kat yi lañ jël teg leen ci kanam te rew buy teg rew buy doxé non du mësa développer ci aduna suñ bëggé suñu sénégal dem nañ jël borom xam-xam yi ak nit ñu am dignité yi ak nit ñi nga xam na dañoo gëm seen bop ñu teg leen ci bop rew mi ñu mëna tabax sénégal mu jëm kanam mais moustapha cissé lo ban garat la am ban cër la am ban respect la am ba nara a taxaw naan day politique walla taxaw di saaga nday ñëpp ñëpp di déglu saagaam yi kenn du ko wax dara man de dama koy naqarlu ba ci kanamu yàlla. ci dëkk boo xam ne dëkku respect lañu wax ci dëkku diine ci dëkk boo xam ne ay kilifa yu baax ñoo tëdd ci suuf si dëkk boo xam ne ay kilifa ñoo fi nekk Moustapha Cissé Lo jël làmmiñam di saaga ndey mel ne xale bu ndaw buy saaga ndey ba pare ñoom ñooy taxaw naan Assane Diouf saaga la ñoom ñooy taxaw naan Assane Diouf day nekk fii di saaga nit te deug deug man d'accord na ne Assane Diouf da fay saga nay ta anduma ak saga Assane Diouf yi waye duma and ak saga mustapha Cissé loy de duma ci moso contane gis nga ni may bañé saga Assane Diouf yi diko xex nan ko Assane Diouf bayil nit ñi ngay saga non lay xexé saga mustapha Cissé loy pour mu bayyi saga yi muy saga parce que li du respect bok bokul ci respect bokul ci diiné bokul ci ngëm yalla li la ñëw diko wax sama conseil nak buma lay jox la yow mustapha Cissé lo <clears throat> nga dégg ko bu baaxa baaxa baax waaw leneen li may ñëw ci abi ndour la abi nduur mooy rakk yusu nduur abi ndour dégg nañ la déglu nañ sa vidéo bi ndaysan vidéo bu daw yaram la yërëm lantu tung ci joy nga ci métti lu nga ci man de abi ndour dafa am luma jaxal ci yow abi ndour depuis senegal ba Macky Sall yéegee ci nguur gi ba légui man Aby Ndour dafa amul fenn fuma la déggé nga joy ngir sénégalais yi wala nga naxarlu ngir sénégalais yi wala nga wax ngir sénégalais yi te depuis Macky Sall togué ba légui yow Aby Ndour xam nga ñaata jafé jafé la fi sénégalais yi dund ak bari ak bari jigéen ñaa ngi ci buntu hôpital yi parce que amuñu xaliss jigéen ñaa ngi bëgg am doom ñi leen di teg ci sereet yi ci àll bi di leen dawali dëkk ak dëkk ñi am doom ci kaw sereet yi Sénégal yi suñ feebaree duñ mën a faju ndaw ñi amuñu liggéey abi réew mi metti na foo laal day metti abi mais yéen mbalax maan yi yéen woykat yi yéen ñi nga xam ne da ngay naa nekk ci showbiz bi xam ne yéen yéen tëgg fecc misik rek moo leen ñor te ndeysaan abi nduur yéen yàlla daf leen may ngeen am baat su ngeen waxee na junne nit danañ leen déglu su ngeen waxee Sénégal yu bëri danañ leen déglu mais loolu yàlla may leen noonu ngeen waroon ci wax di jàllale ay message pour jafe-jafe sénégalais yi ngeen war a jël seen bic wala seen xalimba di bind pour jafe-jafe sénégalais yéen Aby Ndour mais defu leen ko da ngeen di bàyyi ba ba ba mbir mi tegu seen kaw ngeen bëgg a ñëw nag ci kanam sénégalais yi di paccal ay rongañ naan da di jooy walla naan da ngeen di pour sénégalais yi seen yaram daw ñu jàppale leen Aby Ndour place boobu nga xam ne dañ la ko jox ci li nga wax nga waroon faa def ay mbir Aby Ndour kanaa xamoo place boobu am na ay doomu sénégalais yu néew doole yu fa newoon ñoo xam ne yaa leen fa fekkoon ñiy yett ay ay ay birig di yett ay mbir di defar ay tablo lal ñiy lal di jaay ay doomu baa doole yu fa nekkoon kanaa xamoo ni Aby Ndour yaa leen jaay doole jëlee leen foofu doomu baa doole yooyu pour pourtant ci réew mi lañ bokk de ba ngay indi sa di toj seen bagage yi di leen yàqal di jëlee liñ fa defoon Aby Ndour boobu kanaa xamoo woon na ñooñu dañuy daw dépense kanaa xamoo woon na ñooñu ci réew mi lañ bokk kanaa xamoo woon ne ña fa tegoon noonu di jaay ci réew mi lañ bokk parce que da leen jaay doole am foo jaar graisser sa xaalis parce que wax nga ko ñu jox la mbir mi nga ñëw jaay doole sénégalais lambda bi nga xam ne loxoom jotul ginnaawam day xëy di am ambulance di lal di teg di jaay pour am lu mu dundee nga ñëw yëkkati leen foofu samp yow ñi ñu la Aby su ma doon yow doo du ma naqaral su ma doon yow du ma jooy su ma doon yow dangay xalaat na ña nga ko def co métti bi métti ci ñoom yow suñ la ko defee war nga mën a xam ne nii la war a mel ci yow parce que bul xeb doomu sénégalais bu touti bu yor bu yor ñaari kaskam ak ñaari écouteur di ci wër lum lek bu ko xébal lolu de ak am solo abi ndour da ngeen di bayyi ba mbir dal sen kaw ngeen bëgg ñëw bëgg joy sénégalais yi moo ma bëgg wax samay mbokk sénégalais yeewu len ngir yalla doomu sénégalais yewul gis nga ñu ñun sénégalais yi nga xam ne ñu ngi dund coono ñun sénégalais yi nga xam ne depuis 1960 ba léegi coono rek ci lañ nekk. abinduur Ndour am nga kër gu macha allah comme pale wax nga ko de nee nga manqué woo dara yow Aby Ndour macha allah da ngay dem États-Unis di ñëw comme ndox da ngay dem Makka fu la neex da ngay dem parce que sa mag mooy Youssou Ndour mooy borom tele bi borom télé bu mag bi. mooy yuuxu nduur borom télé bu mag bi mooy sa mag waaw mooy ku lënkaloog bi du not alors du not senegal yi mooy sa mag yu nduur ci moom nga waroon a njëkk soog a victimisé wu parce que li waral lii yu nduur la coolu coolu yëpp yu su nduur la parce que télé yu su nduur bi su loon won sénégalais yi dëkk di koon sénégalais yi dinañ xam fan la ñuy teg seen tànk mais mooy télé buy masque dëkk ji sénégalais bi nga xam ne fay dox ci kaw askan wi di nelawal sénégalais du len nango wax réalité bi kun télé yi sunduur bi bokku na ci kumpaloo bu gëna mag di not sénégalais yi ma bëgg la ko xamal abi nduur abi nduur ñun duñ la jooyle abi nduur ñun duñ la xéxal duñ la soutenir parce que xéxaloñu soutenir roñu sa bop nga ñor parce que sa intérêt lañ laal motax nga génn ci internet bi di joy su fekkoon kuñ laal sa intérêt nga génn joy di kon Sénégal yëpp jooy nañ mais nañ leen jooyal Sénégal nañ leen jooyal intérêt Sénégal nañ leen jooyal Sénégal muy Sénégal goo xam ne amul justice Sénégal goo xam ne ku sa loxo jot sa ginnaaw nañ lay jaay am Aby Ndour jooyalal Sénégal yi nga nekk fii nag di victimiser wu jàpp na ñun Sénégal yi ñuy taxaw di la yërëm na gaa yi dugg ci sa page Facebook dugg leen ci page Facebook gu Aby Ndour ngeen wàcc ba ci suuf ngeen xool ko li muy dund li parce que fii ku nekk li ngay dund rek ku dugg sa biir Facebook rek dana ko xam su fekkee patriote nga ku dugg sa Facebook dana xam ne kii patriote la Aby Ndour benn vidéo vidéo bi la gis si gis si biir gis ci facebook am muy benn vidéo boo xam ne muy paccali ronxañ di jooy yi ci des yëpp ay vidéo noos la mu leer na kii yëgut sax sénégalais yi lu ñuy dund mu leer na kii ni lijjantiwut sax li sénégalais yi di dund ñin ku ñu mënul xeexal duñ la xeexal ñin sénégalais yi ku ñu mënul taxaw kaasal ñi duñ la kaasal ñin soo gisee ñuy défendre président Ousmane Sonko parce que daf ñuy xeexal te duñu gën a gore ku ñu bëgg ñu bëgg la ku ñu xeexal ñu xeexal la ku ñu gëm ñu gëm la moo tax ñu topp président Ousmane Sonko te su ko keneen defee tamit danañ la défendre looloo tax ñuy défendre Barthélémy Dias patriote bu mag bi moom Barthélémy Dias bañkat bu mag bi jàmbaaru fàq tëdd bi waaw kuy xeex notaange la moom Barthélémy Dias dañ koy xeexal. lépp lu Barthélémy Dias wax dañ ciy dëgg seen tànk xam na dëgg la parce que Barthélémy Dias ñun xam nañ ne bañkat la xam nañ ne kii gaynde la xam nañ ne kii ku ko dénk sax Sénégal dana ko yore parce que bëggul injustice ñun ñooñu lañ gëm ñooñu suñ génnee wax ñi xeex parce que ñu ngi ci xeexu Sénégal mais yéen dara ñorul leen lu dul seen bànneex bakkan ngeen topp nemmeeku leen Sénégalais yi ci lu ñuy dund yëgu leen Sénégalais yi jàppalewu leen Sénégalais yi. suñu waxe ngeen tok di ñu bëgg ray su leen suñu leen tegee dara ngeen bëgg Sénégal yi génn di leen yuuxul di leen joyal kana yeen yeen ñu gën abi nduur kanaa yeen yéen ñu gën yéen Sénégal yi ñun suñu amé luñu ñu du ngeen ñi xéxal te pourtant yeen am ngeen baat yo xamné ne su ngeen waxee ñëpp dégg leen yeen su ngeen démé ba am lu leen naqadi ngeen bëgg ñëw laxasu ci Sénégal yi bëgg Sénégal yi taxaw joyal leen seen naqar duñ leen joyal seen naqar ñoo lank ñoo bañ parce que lépp lu la métti yow Aby Ndour bàyyi la xel na rey na ay sénégalais suñ jël suñ la jaayee doole nangu sa suuf bàyyi la xel ne junniy sénégalais jaay nañ leen dool rey leen tëj leen ci kaso gi nangu seen i suuf te mosuñ la cay dëkk te ab sénégalais nga de di seetaan tele di dox ci dëkk bi di xam li sénégalais di dund nga nekk nit koo xam ne nga am kàddu am voix nga yërëm lëntu di jooy di paccal ay rongañ ñun gëmuñu la Aby Ndour wax nga naan père Acapa Goudia bi daf ma bëggoon a tëddee dugg na fii génn fi waaye Aby Ndour bul wax loo Sénégalais yi Aby xam nañ li xew TFM promotion canapé bi ñun xam nañ ko Sénégalais yi xam nañ ko de ne ci de promotion kamaate bi kamaate xaw tamaate xaw kanaape canapé xam nañ ko Aby Ndour bul yëngal Sénégalais yi li xam dafa bari damal nga uti jëkkër nga sey damal nga uti jëkkër nga sey parce que jigen so démé ba tollu ci ben as bi da nga wara dem uti borom kër pour laq ngeureum damal nga uti borom kër lolu dara amul ben problème bul wër sa bopp père pa guja bi boobu ngay wax borom njabot la yor kërëm su ngeen démé ba xamatu leen fi ngeen jëm di victimiser wu ci kanam sénégalais yi victimiser wu doyul ngay kolom modif na daf ma bëggona tëddé tëddee daf ma bëggoon def li daf ma bëggona def li ragal leen yalla ci li ngeen di wax alalu aduna jarul dara alalu aduna jarul dara ragal leen yalla ci li ngeen di wax man xawma kan moy père aca pa guja bi man xawma ko sax xawma sax pa boobu mais dafa am lo xamné soko taxawé di wax abi suñu xel yi duñ ci ànd ñun ay borom xel lañ dañuy xalaat Aby Ndour man gëw ma depuis jamono bu yàgg ba nga ne paa bi daf la bëggoon tëddee parce que moo loolu la laaj léegi lii dénoncé sewoo ko depuis jamono jooju bàyyi ba jamono ji nga xam ne ñàkk nga nga bëgg ñànki naan daf ma bëggoon tëddee mais lan moo tax ba mu la bëggee tëddee ca bër set ka waroon ngaa taxaw nga wax ko Sénégalais na leen démb de daf ma buggoon a lijjanti lii sotti mu bëggoon ma tëddee duggoon a fi génn gars xam ko mais da dem ba am problème soo ko taxaw ci kanam Sénégalais yi bëgg leen gëmloo na leen paa bi daf ma bëggoon a tëddee Aby Ndour Aby Ndour magam jëmmu nga làq nga âge yu bari am na ci loo xam ne soo ko bëggee taxaw di wax ñun Sénégalais suñu xel du ci ànd parce que say wax. Il am ay pas ce discours il am ay ay glisser glisser Il xamné da ngay def ay faux pas Il ne faux pas fi ne faux pas Il ma xamal lo lolu ñun suñu yi ñuy doy nañu ñun dañoo bëgg ngeen ñëw ci xexu Sénégal dañoo bëgg ngeen ñëw xexal Sénégal ñun ko xexal Sénégal ñi xexal xexal Sénégal li wuñu la gëmuñ la sax ñun dañuy xex ñu nekkuñ fi di débat di idée nekkuñ fi di débat débat professionnel ñun nekkuñu ay borom xamxam yoo xam dañu fiy nekk di iji ñun Sénégal lañ bëgg mu changé point ñun lijjantiwuñ leneen lu dañoo bëgg senegal gii ñu nekk mu changé ni muy doxee neexuñu ñun loolu lañ gëm am na ci ñoo xam ne nag lenn rek lañ gëm soo waxee ñu ne la noo da ngay nekk borom xam-xam di analyser fii senegal ñaata borom xam-xam ñoo fi jàng ba yor ay diplôme sàcc la jëm ak luubal alalu réew mi ak trian ci la ñun soxlawuñ boroom xam-xam boobu barke rasulullaay duñ dellu ginnaaw danañ continuer di xeex danañ continuer di dénoncer fañ teggoon seen tànk démb ak barki démb danañ continuer di fa dëgg sant di fa dëgg suñu tànk abi nduur yaa fi wooyeen benn wëy soo jéemee jéem dara sottiwul bul découragé yàlla jeexul abi nduur loolu yaa fi wëy jéem nga côté bu ne sottiwul mais bul découragé yàlla jeexul continuel nga uti leneen foofu corniche ba la moomoo ko kilo ko jox moomu ko sénégalais yi ñoo moom béréb boobu ni nga fa amee droit la fa senegal yëpp amee droit mais da ngaa ñëw jaay doole ay sénégalais jëlee leen fa ngir da yore dooley poos ku la ëpp dooley poos jaay la doole jëlee la fa muy dund jën xam nga dund jën ku ëpp sa morom doole néewal da ngeen di néewal doole Sénégalais yi yow dem nga màkk ba tàyyi ak Aby Ndour nga ne ñun amuñ paasu Bamako ñun paasu Bamako amuñ ko junney sénégalais amuñ paasi Bamako sa mag mooy Youssou nduur borom xaalis bu bari nii kii faj buumu gàcce yi demal mu dimbala la ci xaalisam victimiser wu bi ngeen wara baye bàyyi te ngeen ñew ngeen xexal Sénégal su ngeen demee ba jaxlé rek commencé di joy ci kanam sénégalais yi te su bés bu ngeen jaxlé wut yéen nga nek ci lu leen neex jënd seen auto yu rafet di sañ sewu di jaay mana di jaay sénégalais yi ne yeen da ngeen naa tedd yéen da ngeen naa am yeen da ngeen di solu yéen lu leen neex ngeen di mel fu ngeen rombu ñaan way Aby Ndour a ngi ne la ñëpp di tàccoo ko fecc ay sénégalais yi di joy seen ronkay di tour ngeen leen dégg ko ñoom suñ demee ba am problème rek si lañ soog a ñëw na taxaw ci kanam Sénégal yi di jooy naan dimbale leen ñi du jàll Aby li ngay tànde du jàll du jàll man bëgg bàyyi dama lay woo ci xeexu senegal dama lay woo ci xeexu senegal da di ñëw ngeen xeexal senegal yi da di ñëw ngeen xeexal senegal yi dañuy xeex waaw dañuy xeex. abonnez-vous qui vous ressemble et qui vous correspond. Nyanjo Media Vision, l'œil du delta du Salut.